depuis maire bi ba mu fi ñëwee ba principal activité bi muy def mooy jël suuf d'ailleurs ni mu koy jëlee aussi procédure yi dafa baaxul ñun nag depuis boobu ba man je suis conseiller municipal fille. mais depuis boobu ba aussi ni mu koy defee ci procédure dafa jaarul yoon toujours dafay wàcc yoon benn bi buñ ko tàmbalee ci Zalaar xanaa may wax rek ni ñun def ñu jugement de valeur mais dañuy wax ci feey li fi am parce que lim njëkk a def ñu nga xam ne rafetlu wuñ ko mooy mën a jël 200 hectares jox ko ay firme marocaine ñooñu nii dañ fi def 50 dañ fi def poulailler te xam nga poulailler 200 hectares dafa neexul ci xel 200 hectares nga def pour poulailler lolou que xam nañ ni la rek nga xam firme 200 hectares ñu joxe ko 200 hectares ñu jox ko kon li am peut-être sous une autre forme nak dañ koy rejeter ñu koy rejeter ak énergie force wax ñooñu di signé ak moom maire yor une signature que ni euh, c'est une continuité Le dina fi jóge protocole yi il faut ñun ñu xam lan moo ci malheureusement nag maire buy signé du ko conseil municipal këram lay dem wala xaw fan signé ko maire ñu devant le fait accompli yooyu lan wax pratique il faut que ça cesse ni muy attribuer souci di ko ci zone économique spéciale bi mu wax di jox entreprise yi amul opacité parce que yoy suy am conseil municipal ñu discuter ci projet bi xol bi lan la ñuy euh, ñu tirer conclusion suñ ñu ko suñ ko donc aussi ñu ci population ni le ni à ce rythme bala waa di wacc sànjara dotul de ci souf kon encore ñu koy wax alerte loolu alerte la mais aussi de grâce ñu koy yeugal que ni menaces intimidation yi agression yi injure publique yi injure calomnie yoy yeb du duñu reculer lo ci dara ndax bam mu fi ba aussi jote ak maraîcher yi ñu ni cour suprême jox a invalidé délibération deux fois première fois bi def 49 hectares jëlé ko ci num parce que dafa majorité li majorité mécanique conseil yo xamni lu mu désaffecté 49 hectares mise en demeure au paysan yi joxu une indemnisation joxu un délai qui est aussi que ni mooy daal respecté le charte Bon amen, mu avec moi nous ak plainte ñu emprisonné ces pauvres paysans que tax ma ni ces intimidations il faut que ça arrête duñ ne mën cautionner man mii di wax ak yéen à part ak samay position yu may am ci conseil municipal saaga nañ ma fa agressé nañ ma fa physiquement avec des agressions aussi verbales man ak nax la kon donc ñu yóbbu yëf yi ci yoon yàlla may ñu ndam cour suprême débouté ko ni ko yow li nga def dara baaxu ci ñu toog jëmmi jamono il est revenu à la charge attaqué waat désaffecté waat délibéré wat nous ñu yóbbuwaat ko cour suprême cour suprême de ñu ndam Y'a xey yow li nga xamni mo la fal tay nga jël décision yo xamni baxul Mine le la li nga nek daru du ci mais laisse en paix ces gens là il faut les laisser en paix non seulement débouté wat nañ ko mais mu porter wat len plainte ni paysans yi occupé encore ces terres les pratiques sont dénoncées dénoncer et on refuse ça zone économique spéciale bi mu wax ñun bañu bu développement mais dans la légalité il faut que nous def dans la légalité amul benn yoon usine bu mu samp Sandiara boo xam ni indi conseil municipal ñu débattre ko xam nan la fi donc les pratiques vraiment dénoncées. Comme le dénoncer. comme ni que conseil waxee dire. Nous ma que suñu suuf dafa ñaaw parce que amul un consensus amul ne maire ne jël suuf fekk dafa de qui ak population bi zone industrielle bi dafa ñëw 100 hectares Nous avons jékki que nous décret 100 hectares euh, le maire décret présidentiel mais 100 hectares ne

sa tool tey mënoo waat ne bokk na wala bokkut da ngay jékki-jékki gis ay nit nekk ci biir tool bi biri di daaneel garab yi ñi di gas ay fondation ñi di brique nga doog a xam ne kat sama tool bokk na ci zone industrielle bi boo ñëwee wax ñu ne la eh, fii ñun ñoo ko moom bu ñu neexee ñu dédommagé la bu ñu neex du ñu la dédommagé dañ leen di neexal kese bu fekkee ne hectare la ñu yëg te téeméeri junni ne am jox nañu la soo bëggee nga jël soo bëggul nga jël waaye suuf si nañ ko jël maire noonu la nekkee ñun. maire depuis 2014 la attaque. attaqué attaque, itam conseil yi def sen conseil ne ah na sen tol ñu ko ah merde, su suñu bon lolu mom ñun France franchement lolu ñun ko mais de toute façon dinañ continuer di liggéey ñu continuer di un jour mu daga euh, di lotissé bi muy lotissé tool bi ñun ñu fekk ko fa jóge suñu biir tool fekk ko fa ñu ne leen kan moo leen yónni ñu ne la maire moo ñu yónni bi ñu yónnee bu mu waxee lool itam ñu ne leen de borne yi duñ fi samp ñu jël borne yi sànni leen biñ leen sànnee itam ñoom ñu plainte ñu yóbbu ñu tëj ñu biñ ñu tëjee itam tëj boobu alhamdulilahi rabbil alamin parce que daf ñu arrangé parce que moo ñu indi ba fi bi juge bi interpellé ne leen da ngeen di fajal seen bop ñu ne ko noonu bu len fajal sax xanaa da ngeen a xeeb justice su Sénégal ñu ne ko noonu xeebuñu ko mais biñ fa joggé nak lool lañuy def top yoon bi jël suñu avocat dem au niveau de cour suprême régler suñu papier ñew premièrement biñu daanel ko li ñu ko daaneelee itam am na ki jóge ci fële ñëw ci moom ne ko yi daaneel nañu la mu ne suñ ma suñ ma daaneelee itam nga duñ fa liggéey te loolu lay dund. donc ma bëggoon a wax sax déjà ci projet bi nga xamante ne moo ma gën a métti ci projet yi en tant que ndaw muy le projet du port sec port sec bi camion camionneurs yi nga xam ne ay maliens la jox suñu suuf waxtaanul ak ñoom mais déjà man waxut weesu naa suuf si. ñii ñëpp problème suuf lañ wax mais nañ wax ci projet yi camionneur yii di garé fi lu ñuy yàq moo ëpp fuuf lu ñuy defal ci dëkk bi déjà fu ñu nekk ñu ci diggante entre les deux lycées lycée bu ñuy tabax muy le lycée technique ak lycée bi nga xamante ne fa la xale di jàngee man élève laa woon yàlla def na def nag jàngewu ma fi mais am naa ay rakk yu fi jàngee fii ñu fi xëy ñu bari ñu fi jàngee yàlla xam na ne bu ñu génn seen kër bu ñu lekkul cere du ñu ndékki nga ñëw jàkkaarloog malien di xale bu jigéen bu la nee kaay ma may la 10 000 boo bañee tey bu subaa doo bañ ndax sa morom dana ko jël donc pour sec bi li muy yàq mu ëpp mu fi ñu créer des zones de prostitution ñaata zone lañ dem ñu dàq leen kon donc nañ xoolaat projet yu ñu àndil bu dee bëgg nañu deuxième projet bi nga xamante ne dama koy naqarlu sama maam mu ngi fii gaara jaxeer usine bi mbur ngeen jóge mo fa jóge ñëw fii ñii ñu ngelaw gu bax ndax junni ndëb yi ñu fay défar man nak sama problème bo le maire ñu né docteur la ga docteur la mais ñun suñu problème c'est pas le maire c'est pas le docteur qui nous intéresse c'est le maire de la commune de Sanyara qui nous intéresse gestion am dara baaxu ci parce que déjà gestion da nga koy waxtane askan wa amna lu gëna nek priorité su suqeem gi ma leen di wax ni c'est à moins de 1 km de de de Sandiara amuñu ndox amuñu courant quelques jeunes la fa def ndox bu élection jubé mu brancher leen ndox wala mu dig leen ben ndox ben borne fontaine au moment où malien yi ngeen di wax ni man ma dégg son adjoint au maire bo leen bëggee ma jox leen élément bi mu ne da leen di jox ndox gratuitement au moment où sa propre population n'a pas l'accès à l'eau

ndax la muy def waa àll boobu musiba la ak garab yi fa nekk ak environnement ba kon lii itam ministre bi nga xamante ne mooy yor environnement bu Sénégal war naa jóg ci loolu ndax population bi nga xamante ni bii ñoo nekk ci biir Sandiara sonn nañ ci li sëriñ bëgg def ak li muy def. beneen bi mooy usine bi nga xamante ni moom la installé ci turu Loulindia man mii maa demoon fekkee négoci négociation ba bi muy négocier ñun wax ni téeméeri jën lay joxe te muy jaay loolu ay 10 million ba ca tegu mooy mu waxoon waa dëkk ba danañu ñëw pour jël leen amul benn doom lu liggéey boo xamante ni ma ngay liggéey foofu mu ñëwaat na taat encore ba suñu armeel yi di ñu yoolewaat ñëw foofu dafa yëkkati ay naxaate yoo xamante ni bii jël yëfi nit euh, ci ay fukki millions ñëw dafa dugal ay ay ay juróom juróomi tonne ciment ak benn bërigo fer loolu ci ay yoo xamante ni bii ña fa na tëdd ay ay ay ay nit yàlla ñun nag kalaame nañ ko yàlla beneen bi mooy état bi war naa wax ci lii ndax dañoo war a dem élection ci maire yi ku bëgg nga xamante ni bi dañ laa war a falaat état bi def organisation élection yi ñu falaat maire yi ñu bëgg ñi ñu bëggu ñu dindi leen fi jël fi indi fi ñeneen moo gën biccoo mbaaloo bi nekk fii te moo am fépp ci Sénégal loolu nag état bi laay wax moo ci war a jël jël ci ay engagement am loolu pour maire yi nga xamante ne bi dañuy nekk di yàqal nit ñi

ma xamal leen ne sanjara boobu suñu maire di wax ci télévision yi bokkul ak sanjara bi ñuy dund sànjara bi sànjara sànjara bu fantoom la ab sanjara fantoom lay wax léegi nag li ci am ba des mooy fan yii yëpp yéen a ngi dégg ne réew mi yëngu na ci mbirum suuf ñu ngi wax littoral waaye lii moo gën a garaaw littoral li fi am sànjara mooy suñu maire day jël suuf si di hectare 10 millions di paysans yi ab cinq cent mille Tout la parce que boo kaasul la li wone ne la que 10 millions le conseil municipal n'a jamais voté ça le conseil municipal n'a jamais délibéré sur les 10 millions cela veut dire quoi cela veut dire que suñu maire suñu maire Serigne Gueye Diop 10 millions de fan la koy man bind le percepteur ne Sandiara fii le fait, au lieu ñuy trésor public nous la ñuy ñun yu yi secrétaire municipal moy defar ay décharge joxe xaalis ca mairie ba fay nit ñi ca mairie ba décharge ya ngeeg ñun kon donc li ci teggu rek moy que ñom ay sàcc lañ te dinañ leen yobu yoon lolu moy 1 deuxièmement on interpelle directement le président de la République Macky Sall moom la interpeller le président de la République parce que il paraît que Serigne Diop c'est un ministre conseiller de Macky Sall

cela veut dire que ñu ñu fal tey ñu ñuy jiite ñu ngi sàcc suñu alal parce que parce que duñ ko wax ne ay détournement yooyu tubaab mooy wax détournement ñun nag sàcc la ñu wax sàcc ñu ngi sàcc suñu alal te nag bañu ñu te dara lu tax ma ne ñu ngi sàcc nag parce que dama am ay preuve parce que xam naa ne ñun rek la bëgg a man mi di wax ak yéen bokk na ci ñoo xam ne nañ ma ci procureur lutax nak ma am sañ-sañ wax ne du ñuy sàcc dama am preuve sacc ku am preuve sàcc nag bu la nexé ne dégas ngaa dañoo sàcc kon donc ñu ngi interpeller le président Macky Sall ci la xew Sandiara moo gën a garaaw lu xew Ndengeleer ma ne suuf si nekk Sandiara yëpp bu mu amul benn conseil municipal bo xamné def nañ ko fi ci Sandiara te amul délibération amul amul man conseil municipal laj naa ko délibération bi à mes propres frais mu bañ ba j'ai commis un huissier pour sommer ko pour ñu jox ma délibération yi parce que moom bu muy tambalé nee na 10 000 hectares la soxla te boko bolo ko booloo gàncax fu nit ñi dëkk ak fepp fo xam ne la bokk périmètre communal bi 19850 hectares la Serigne Gueye Diop néna 10000 la soxla bu dagal na bopam mom bopam dagal na bopam 50 hectares bo xam 50 hectares bi nga xam ben société bo xam ne da koo créé mu nakk fe xaw mu jël ay tolu jambour dagal ko bopam ne mom moko mom parce que lolu conflit d'intérêt la je suis maire je suis majoritaire ci conseil municipal ma ñëw indi sama projet ñu dagal ma 50 hectares amul fenn Sandiara rek la am kon donc na nit ña xam ne li xew Sandiara gën a garaaw littoral li xew Sandiara gën a garaaw Ndengeleer fu mu il y a même des courtiers affaire bi yemul ci spéculation am courtage am na ñoo xam ne seen liggéey du dara bu dul jaay suuf fii ci mairie bi suuf la ñuy jaay benen affaire bi ci gën graw il dañuy inciter sax chef de village yi pour que ñu jaay souf suuf fa am benn kayit bu ñu jox chef de village yi pour képp koo xam ne jaay nañ la suuf nga jaar foofu ci conseil bi ngeen signé ñu indi maire yi maire jox la délibération. kon donc maire bi mooy inciter population bi pour ñu jaay suuf boo gisee population Sandiara aussi di gaawante di jaay suuf dañoo tiit am na ñoo xam ne dañoo tiit damay jaay balaa maire di nangu ndax maire bu nangoo du ma ci am dara.

di ko nangoo ëllëg lu ñuy wax mooy mari malien yi nu leen dàqee Koungheul dàq leen ñi dàq leen feneen di noonu lañ leen nar a dàqee ñu jege fii poor sekk bi bëgguñu ko di jooy bëgguñu ko di ree port sec bi amal ñu benn njëriñ ndax malien yi fi ne drogue la ñuy indi ak tàggatu drogue ak tàggatu kañ ko ban dëkk moo ko bëgg bëgguñu ko soxlawuñ ko dama ne HLM bu ñu ñëwee di jaayee seen kër 20 millions Sandiara fii boo amee 10 million am kër

Nous demandons que la, Cour des comptes, l'OFNAC, soit saisie et que le maire soit traduit à la justice. Voilà.